mbokk nga xam ne yéen a ngi topp 24actu point com am nañu mbégte ànd ak yéen ci jotaay bii nga xam ne euh, dañoo fas yéene waxtaanee lépp loo xam ne jëm na ci jongante njiitu réew yi nga xam ne moom la ñu génn ba léegi ñuy xaar résultat mu nekk nag fukkeelu yoon ak benn boo xam ne ñi ngi amal ay jongante ci Sénégal ni ngeen ko xamee candidat yi euh, Sall moom moo nekkoon candidat sortant bi euh, ki nga xam ne nag moo di maître Madické Niang ak Ousmane Sonko ak ki nga xam ne moo di professeur Issa Sall ak Idrissa Seck gannaaw nag ba léegi ñuy xaar lépp loo xam ne jëm na ci résultat yi tey jii nag ñu fas yéene waxtaanee loolee ak yeneen i ponk yoo xam ne dina soxal askan bi moo tax nag ñu am fi ki nga xam ne nag moo di xaadim si la nekk responsable politique APR waaye tamit bokk ci comité électoral bi nga xam ne euh, ñoo nekkee fii ci Touba sëñ Khadim ñu ngi lay nuyu ma bàyyi la nga nuyoo ñu lay seetaan ci 24actu.com. Euh, jërëjëf euh, maa ngi nuyu ñi leen di seetaan ñëpp téléspectateur de 24actu di leen ndokkeel. ci leen féliciter aussi toute la population de Touba ci wax ma sax Touba mais euh, au la du Sénégal ci li nga xam ne ci lañ jóge muy ndamal réew mi yëpp di rawal ndamal réew démocratie sénégalaise ndax euh, jàppoon nañ ne le 24 est-ce que danañ yeewu le cinq dem liggéeyi mais seen peuple sénégalais wane ni maturité am jóg ci njekk ci teraanga ak ci silwise gu mat sëkk euh, amul xeex amul xuloo buuxante sax amu fa c'était extraordinaire dama doon xool ba si yàgg ma ne le peuple est plus mûr que les politiques voté dem génn dem ñibbi seen kër ngoon jot résultat yi ñu publier ko ci bureau yi déggoo kuñ toj boppam deret tuuruwut euh, bagage yàquñ bagage su kenn donc euh, loolu dañ koy amel nañ njukkal donc le peuple sénégalais encore une fois de plus euh, c'est une leçon boo xam ne démocratie sénégalaise dicté na ko à l'Afrique mais aussi au monde entier kon nag ñuy ñaar noonu mu tàmbalee Euh, yàlla na ko jeexee jàmm ak salaam. voilà xam naa dinañ ci dikk euh, ngir gën a yaatal nañ ci xuus ci lépp loo xam ne jëm na ci élection yi en tant que responsable politique APR ci Touba nan ngeen waajale yooyee jongante. waaw waajal nañ ko comme ni ko euh, bépp parti politique je dirais même coalition di waaje ndax comme ni nga ko waxee élection moom lees di waajal la je crois <laughs> que depuis nit ñi sax les dernières semaines lañ gis mais je crois que depuis deux ans ci perspective boobu lañ nekk. ndax euh, umpule woon ne Touba moom dañ fee am des difficultés réelles. ah bon léegi nangu ngeen ne da ngeen am. boo ko nanguwul nii liste nga ndax munoo dem élection benn ñaar ñett ñeent ñu gañ la euh, nga ne problème amul si problème am na euh, léegi nag est-ce que dañuy toog franco laay ne munuñ ci dara non on n'est pas si pessimiste à ce point parce que problème am na. ensemble la ñuy jéem a réfléchir pour xool yan solution bi fan la nekk mu mel ni affaire yi gën naa xóot lool. difficile difficile à expliquer xam nga loolu laa lay wax léegi euh, sociologiquement Touba euh, population bu naqaree scientifiquement nga mën leen a analyser tirer ci ay euh, conclusion c'est très difficile ndax bu fekkente ne dañuy analyser sous l'angle politique le président Macky Sall def na fii ci Touba loo xam ne wax dëgg yàlla kenn mënu ko werante mën nañ ci teg baaraam ne lii de def na ko fi muy lu baree baree bari yoo xam ne régime ya fi jiite woon wax dëgg yàlla def nañ fi nag kenn mun a wax ne defuñ fi waaye nag li ñu fi def en sept ans régime nekk na fi vingt ans quarante ans je dirais defu ko euh, sunu maam Abdoulaye Wade aussi ñu koy nuyu ñu ko ñaanal yàlla fanu gudd def na fi lu bari waaye nag en sept ans li fi mag Sall def euh, raw na fuuf li nga xam ne def na ko fi. Euh, mais est-ce que li mu fi def du nekk bekk suukar ci géej. non non non dañuy gis que ni euh, il est vrai que ni yaa ngi wax ne def na mais ba léegi mënul euh, téye Touba. non c'est pas c'est ça c'est que le vote ne pas lié à cet aspect la le vote à Touba bu fekkoonte ne dañuy xool bilan wala ñu liggéey ñu xool teg si bët am ci satisfaction mel ni ku ñuy évaluer par rapport à ton travail <laughs> foofu ñun amuñu ñu tiit amuñu ñu ragal. ndax euh, boo ñëwee Touba depuis indépendance ndax dëkk buy màgg je me rappelle euh, ah fàtte naa année bi mais je crois en 1989 90 comme ça Touba mës na remporter benn prix ci affaire urbanisation c' était en Turquie lañ ko joxe woon sax je me rappelle bien mais euh, année bi laa peut être la la la xaw fàtte mais loolu moom je me rappelle de ça. mais dëkk bu toll nii ak ni muy màggee ni muy gaawee xam ne chaque jour 20 à trente famille tuxu si fi plus de ça même dëkk bi di màgg de manière exponentielle. Euh, réseau d' assainissement ba indépendance amee léegi jëluñ ko en charge ba ba ba mu débordé suy tawee nit ñi nekk ci di pëccoo ci ndox mi le président Macky Sall bi mu ñëwee mu tëral un programme prioritaire njëkk cee def euh, linéaire de plus de 7 kilomètres li wër jumaa ji ba ci ñaari étages ak yooyu ñu def euh, réseau d' assainissement je crois que depuis l' indépendance bu fekkoon ne chaque année wala chaque deux ans ñu def fi 7 kilomètres naa am mën naa couvrir def loolu Euh, boo xoolee aussi euh, moto pompe yi nga xam ne moo nekkoon ci jumaa ji man li may wax ni yëpp du dama ne damaa dégg du damaa ne gis dama document mm. bi ñuy tracé euh, fi ki canalisation yi war a jaar maa ngi toog ministre Omar Gueye moo fi ñëwoon présenté ko porte-parole du khalife général des mourides ba mu am sax ay orientation yoo xam ne def na ko ci danañ def nii nañ ko jaarale fii nañ ko jaar yëpp maa ngi toog donc bi ñu koy gas aussi yaakaar naa dem na sax ba xaw a jaaxal nit ñi ba am ñu jug foofu tamit dinaa fi dinaa la ci dagg parce que souvent dañuy gis ne Touba dañu am jafe-jafe euh, ci wàllu euh, bu tawee day taa euh, buntu mairie bi sax daf doon taa ak yu ni mel donc kon foofu Xaadim tamit vraiment nekk ba léegi xam nga su la 7 kilomètres de linéaire ah, wax dëgg yàlla dëkk bi rëy na rëy goo xam ne amul benn nguur bu ne la en cinq mën na régler wax naa ko ci campagne. mais nag am na loo xam ne xanaa c'est minimum tamit quand même voilà. minimum mooy nga teg un programme. xam nga programme moom dañ koy dañuy wax ne kii ne planifie pas planifie son échec. dañuy teg ne ci at yi de lii la ñuy def bu ñu paree at yi ñu ne waat dans deux ans lii la ñu war a def di ko def ba mu mat parce que amul benn nguur bu na wax ne en cinq ans sept mën na régler le problème d'assainissement à Touba. donc loolu aussi lu ñu def la loo xam ne mu ngi ne fàng ñëpp di ko gis euh, fi nga xam ne si aussi euh, wàllu infrastructure yi ndax euh, bi fi nguur gi la di jógee en 2011 arrêté woon nañ les chantiers de Touba li doon wax les chantiers de fameux chantiers de ci problème boo xam ne góor fi nekkoon. dafa dem ba mënatul wax dëgg yàlla mu amel bor chinois yi chinois yi arrêté liggéey bi Macky Sall bi mu fi ñëwee en moins de 5 mois relancé nañ travaux yi terminé ko boru 11 milliards lañ amoon loolu aussi fay nañ ko tali yi ci dëkk bi ci bari ci lañ ko defar ndox mi xam nga am na loo xam ne bu ko suñu opposants yi waxtoon ñun duñ ko mës a wax suñu taalibe mayuñu ko ndax dañ ne defu fi benn forage defu fi benn forage Macky Sall li mu fi def ci wàllum ndox euh, sëñ Saliou euh, moo ko ko santé gërëmee ko bi muy nekk ministre de l'hydraulique wax dëgg patron bi nag Ablaye Wade la woon xam ne bu ko neexoon peut-être du ko fi def waaye nag euh, def na fi lu baree bari ci waa euh, lalu ndox pour que euh, quantité bi yokk boo ñëwee aussi facture yi nga xam ne si moom la forage yi di utiliser loolu laa lay wax ne bu ñu ko waxtoo ñoom du ñu ko wax ba ñu songee ne def ñu forage ci lañ wax carrément ne depuis que Macky Sall ñëw fi dem na ci xalif bi xam ne diis na ci xalif bi muy fay facture yi nga xam ne mooy dawal courant bu forage Touba yi mu jël ko en di ko fay loolu yaakaar naa aussi yoonu murid la ko defal ñëpp la ko defal. mais xanaa di nga nangu li ñuy wax ne hôpital niveau 3 bi nga xam ne def nañ ko hôpital boo xam daanaka sengee naaw na loolu tamit vraiment xëy na ñu bëri ñu ko doon xaar feneen. Hmm. ndax euh, loolu rek déjà. Hmm. Euh, ci wàllu santé demal euh, nga ñëw ci hôpital bi nga xam ne xëy na da koo diggoon waa Touba hôpital niveau 3. oui oui. xam nga ci wàllu santé. boo demee fee ca Matlaboul ni xam ne mu yi ñoo cotisé woon def mu dem ba wax dëgg yàlla avec le temps mu commencé rap boo demee ñu ngi fa initier benn euh, bâtiment boo xam ne pour agrandissement pour embellissement ak pour réfectionner ko yoo xam ne par coût je crois plus moins pas moins de 5 ngi foofu di ko exécuter hôpital xam nga euh, nit ñi dañuy jaxase. dañuy laaj fi xaalis bi jaar wala hôpital bi fu mu toll fu sànc bi toll. Euh, c'est bien ñu leeral nag askan bi. li koy lu yëg entreprise mooy contrat. boo defee entreprise contrat am lu la war am lu ko war nga dem ba ci euh, jëmmi jamono nga gis ne moom de la ko waroon ci contrat bi defu ko yoon mayu la nga tëb yow sa bopp dama dama unilatéral ne dagg naa contrat bi li ngay def mooy jaarale ko ci yoon euh, fexe wax boo ko defee mu yóbbu la ci yoon da nga ko fay ay ndàmpaay nga jaarale ko ci yoon am ay procédure pour ñu mën a rompre sa contrat la dëgg am na max Sall am na volonté defar hôpital bi jël xaalis bu bari dugal ko ci budget Sénégal mu ne fànge ñu avance entreprise bi am ay jafe-jafe loolu nag du ma ci dugg ndax bu doon beneen dëkk ma wax ci li ci xam li ma ci xam. Ah ci yenn yi. est que amul lu nekk ci suuf hôpital moom parce que bu ñu nee hôpital lu soxal askan bi la te bu ñu nee askan bi la ñu ko defal tamit askan bi daf leen di intéressé ñu leeral leen hôpital bi fan la toll. en tout cas tardé wul ci gouvernement Sénégal. fan la tardé te entreprise ba nga xam ne moom la ñu ak peut-être que ña nga xam ne ñoo ci war a dox ci diggante bi. ñoo ñooy ñaan non non non boo nee entreprise. sori mu ne ma ci sori mais l'essentiel mooy jëlaat nañ affaire yi en main. kon daa am na lu nañ ko. te jàpp naa ne boo fa demee gis nga ne change se déroule la. voilà très rapidement élection yi gis nañu tendance yi du wax sax résultat ba fii ñu toll nii amul résultat yu génn mais tendance yi ban jàngat wala ban commentaire nga ciy def. no résultat génn na. non amul benn résultat bu ñu proclamé. bu génnee Mouhamed Abdallah Dionne bosam moo génn. non xam nga résultat moom c'est à des bañ baree ci bureau yi wàññi nañ xam lu tax ngeen joxe booba. non tendance yi lañ doon joxe. des résultats. résultats yooyu dafa am ay nit ñoo xam ne ñoom la ñu tànn ñoo xam ne ñoom ñoo ko war a génne mais du ku mu neex rek nga ne ay résultats ngay joxe. d'accord naa ak yow ndax président bureau ba moo ànd ak nit ñi ñu wàññi ne kii am na fi lii kii am na fi lii ñu affiché. il faut que nit ñi xam ne am na loo xam ne dépassé nañ ko. muy lan bu njëkk résultat yi bu génnaan dañ daan xaar semaine tey jii bu ñu affiché résultat feex kan moo ma mën a aaye man ma dem photo ko dugal. mais nag sëñ Xaadim li ngay wax nii bu la <laughs> Sénégalais bu ñu la déggee danañ la mere parce que yi kañ la woon ba ba léegi amagul dara lu leer. leer na ndax bu ngeen bëggoon mu leer yow fii boo fi tëju woon une de temps. non mais man mais man ñoo ñoo war a joxe résultat yi xam nga kañ leen wax jeudi mbala vendredi lañ leen wax loolu dañ koy dañ koy àggagut léegi li jot a génn yow ba dama lay xal processus bi bu ñu jógee ci bureau de vote yi dañ dem commission départementale de recensement des votes ci tribunaux nekk Sénégal la ñuy dem euh, président ba nekk fa ñeneen ñi nga xam ne ñoo représenté parti ba ak euh, ñi ànd ak euh, président bi ak ñi représenté parti ku ci nekk candidat bu ne am représentant ñu génne procès verbaux yi benn par benn di ko étudier di ko étudier di ko étudier buñ paree ñoom dañuy compter buñ paree représentant euh, parti bu nekk mbala candidat bu nekk xool loola ndax dayu na la ndax d'accord nga ca ndax fekkee nga bañ koy def nga signé ñooñu buñ paree dañuy génn taf muy résultat bu leer boo xam ne. parti yi nangu nañ ko candidat ba eh, nangu nañ ko ndax seen représentant ñoo ko signé suñ paree yooyee tribunal bu nekk day transmettre au niveau national. bi moo nekk problème c'est-à-dire Sénégal gi yëpp pour ñu dajale ko. parti bu organisé parce que nag nous ne sommes pas siècle. à vingt trois heures bu fekkee ne cee organisé war ngaa mën a xam loo am fu gox nekk ci Sénégal. et je crois bien que ni organisé ngeen lan lan nga ñu mën a wax ci résultat yi. xam nga ñun ba ñu waxee suñu résultat dañ ko weddi. muy lan. du ma wax ci ay chiffres mais tout le monde. élection yi gagné nañ ko. mais sëñ Khadim fa ci fan ci naka élection yi gagné nañ ko loolu c'est loolu dafa yomb. 35 départements yi mat ñooñu ñëpp pare nañ te seen résultat c'est pas secret lañ liggéey affiché nañ ko ñëpp am résultat yooyu yow bu la neexee léegi nga am ko moo ngi nii ñuy suivre sama page Facebook jëluma ay résultat fi damaa publier les PV yi nga xam ne représentant yi signé nañ loolu kay boo toogee calculer am déglu ma expliquer la. voilà résultat yi la ci génn mooy. boo jëlee Sénégal yëpp ñun département Thiès lañ perte. ak Bignona ak jigéen Ziguinchor ak Oussouye ak le département de Mbacké. mi ngi bëgg bëri de. non c'est 45 département de Sénégal am. waaw li si waay. ñaata laa la ci limal. vas-y continue. donc lañ fa perte. c'est pas perte sax du perte boo xam ne si euh, ka jiitu ñoo ca topp mais ñun sunu objectif mooy fu nekk ñu am fa 50 pour cent et une voix pour jàll premier tour boo xoolee Thiès. am nañ fa un passif pour ñu am 50 pour cent manqué nañu 26 892 Bignona pour ñu am 50 pour cent waxuñu tolloog ñoom seen objectif du loolu pour ñu am 50 nañu pour ñu pour ñu am 5 nañu 1098 Mbacké la pour ñu am 50 euh, euh, pour cent ñu ñoo raw. Mbacké de moom dañ leen faa bàcc moom ak Touba. parce que Touba heureusement que vraiment amélioration am na ci ndax bi commune rurale yi duggee. am nañ ba 67 700 quelque. teewut bàcc yi am. waaw loolu ah, loolu am na am na comme nit ñi ma leen bàccee fenn ñu bàcc ñu feneen rek eh, yàlla baax na. <laughs> Pikine ñu am fa pour am 50 pour cent mu manqué ñu 5243 Pikine ñoo fa raw aussi. Dakar 14284 voix moo ñu may te foofu ñoo fa raw amul benn bureau Dakar bu opposition gañ benn benn laa la wax boo xam ne opposition gañ nañ ko donc boo defee ce total là pour ñu am 50 pour cent il ñu manque fii nii 133 784 yu ñu war a compenser. on gagne Kaffrine on gagne Goudomp on gagne Gossas Kaolack mbuur Kanel Saint-Louis Foundiougne Kébémer Fatick Diourbel Linguère Malem Odar Sédhiou Géo Guinguinéo Tamba Nioro Podor Vélingara Bakel Kolda Birkelane Bambey Ranérou Matam Kédougou Sarera Salémata Koungheul Louga Dagana et j'en passe. yooyu yëpp yéen a ko gagné. à des scores yoo xam ne. am na si yoo xam ne sax 90 pour cent la amuñ fa fenn foo xam ne am nañ fa moins de 53 pour cent. pour te dire que ñoom li ñu li ñu li ñu uti fii les 133 000. boo dajalee lañ dese Podor. maanaam Podor bu ñu génnee 53 pour cent la ca des 50 pour cent génn ak Kaolack 55000 plus Linguère 24 de plus boo ko totalisé fay na bor bee bañ desal suñu poste di xaar. voilà kon élection yi dama non damay bëgg conclure. oui allez-y am na loo xam ne nit da koy comprendre. parce que kay yuuxu mën naa wax ne c'est sa dernière carte. sànni tàccoom la. te moom moo fi wax ne dafa juddu pour jiite Sénégal. leer na ko nag ko bii bu paree mm. ah wax dëgg yàlla nag mën naa dem donc nag il faut que gars yi nangu dogal voilà lii la yàlla def mm. te di suñu chiffre li ma lay wax ni mm. soo bëggee ngeen oote korom ñoo xam ne c'est des indépendants ak parti bokk ci ñu dem jëli ma génne les quarante cinq procès verbaux waxuma la lu ma bind man les quarante cinq procès verbaux comme ni mu amee Mbàkke fii ngeen dem fa gis ko ak feneen ak feneen ñu calculer fii maay fay fereya su ngeen bëggee sax ngeen ut ko am Excel. mu installé fii maay organiser tout. kii voilà ay chiffres nga ñuy jox euh, gis nañu ni Mouhamed Boun Abdallah Dionne sortie bi bi mu ko defee siis Demba kànji dafa wax que ni ay yooyu mu joxe dara wéru ci mënees na ko waxee noonu en attendant usurpation de fonction sax est-ce que loolu tamit cëram la woon tamit quand même. mais yéen xanaa yéen kon yi. ay depuis depuis boobu ay tendance la ñuy joxe mais. arrêtez avec tendance. Mm. ne jouez pas avec les mots. ah oui booy joxe looy wax moo raw fii. est-ce que am nañu droit ne am ñu cinquante sept pour cent wala cinq tourné waat waxaan ne cinquante quatre ou bien. jóge Thiès dem ba Dakar ci permanence dajale nit ñi ne deuxième tour am na. muy kan. sa Seck Ousmane Sonko ñooñu bu ñu defutoon loolu dañuy politique nag. duñ bàyyi kenn mu occuper le champ politique et médiatique di wax ñu toog mel ni ay yambar mel ni ku wolu suñu bopp ñun on est sûr de notre ñun nangu nañ ku leen neex ñu dem jëli ko mu ndax ñun ñun la ñu wateel c'est ça la réalité. la forteresse sera à la loi loolu moom bu leen ci sonn sax. mais euh, xëy na di nga placé wu pour répondre ci muy problème mu deuxième tour pourquoi ñuy wax deuxième tour. est-ce que bàcc yi bu leeroon wax wax deuxième tour tamit. nag di wax deuxième tour. mais nañu waxante dëgg. yow noo ma ne Sénégal 45 départements. la nga ca gagné matul 5. élection présidentielle pour le candidat sortant genre référendum la. est-ce que il aura 50 pour cent oui ou non. bi may calculer Podor nii damaa jël 50 pour cent denc. la ca ëpp surplus de 59 pour cent laa mooy 59 306 voix Podor rek rek rek rek laa wax Matam moom n'en parlons pas escore ay euh, yi yi wax soviétique moo fa am ay weccet lañ leen bàyyil la leen nax mooy dañoo jëloon seen force concentré ko ñëw fii ay dakaar dakaar c'est des gens qui réfléchissent xool nañ ba xam ne wax dëgg yàlla Macky Sall li mu fi liggéey am na bilan am na projet de société parce que am na programme boo xam ne financement bi pare na ba pare léegi nag on n'ira pas à l'aventure. Euh, wax nga waxu gagné euh, mënuñu toog fii te duñu analyser li nga xam ne xëy na mooy euh, Touba ak Idriss Seck ni mu fi def cest à am ngeen mbetteel nag Touba. non personnellement pour vous dire vrai parce que aussi expérience da koy dund si jàll. Touba n'a pas voté pour Idriss Seck. ah bon. Touba a contre Macky déet mais contre Macky Sall Idrissa Seck kese nekk foo ni candidat yi Issa Sall mi ngi fi woon ñëw fi Ousmane Sonko ñëw fi def campagne am mais boo nekk Touba dafa voté contre Macky Sall te Idrissa Seck gagné ko. politico bu ka élection amoon fii Touba nga présenté kon Macky Sall yaay gañ. ah bon mais lan moo tax parmi parmi kan yeneen candidat yi ci des Idrissa Seck jël jàppoon ba. bonne question parce que tout simplement euh, am na loo xam ne pour man politique jarul moom. politique jaru ko. muy lan. comportement xam ne du ma. donc muy lan comportement ba gagné. du ma ci sori. comportement ba gagné Touba daanaka waabale la def waabale. ñaan na seen responsable yu mag yëpp sax seen i bureau de vote. dañ leen dañ leen faa lapp. liggéey nañ liñ liggéey fii. Ah. wax dëgg yàlla. liggéey bi feeñul quand même. lañ fi am hmm. xeebuñ ko. ndax dëkk boo xam ne 35000 euh, voix et poussière ci biir Touba am nañ ko ci wax dëgg yàlla xeebuñ ko. mais buñ sañoon gagné buñ sañoon gagné waaw. est ce que liggéey nañ pour gañ si on l'a fait. voilà mais est ce que mën nga ñëw sama sama sama question. depuis 5 ans boo analyser le vote là da ngay xam ne. Euh, xam nga le candidat le mieux positionné bu ñu doon wax le principal challenger de Macky Sall wax dëgg yàlla Idriss Seck la par la taille de sa coalition. donc nit ñi bu ñuy voté contre Macky Sall dañuy wax ne kee ko mën a gañ. loolu la. pourquoi pas Sonko pourquoi pas keneen pourquoi pas keneen. Sonko envergure bi coalition Idy am wax dëgg yàlla euh, coalition Sonko amu ko woon te aussi les gens veulent voter dañuy xalaat rek ne ña ca des comme du kii moom bokku ci. ña ca des kan moo ko mën a gañ ñu jàpp ne kee la waaye nag yàlla mi nga xam ne dara tawul ak ci ñaanu sëñ Mountakha ñun gañ nañ ma nga may ma aussi beneen mbir boo xam ne gis nga man am na yoo xam ne su ma koy gis en politique sama sidère manipulation politique vraiment li ñuy wax c'est un jeu mu am ay règle xëccoo la waaw mais nañ ko def nu mu a rafetee boo jëlee tey ji jumaay Touba ak symbole bi mu am ci eh, Touba nga mën a jëm jël nit solal ko yëre yu tilim jaxasoo ñëw teg ko buntu kër sëriñ Touba buntu kër eh, buntu jumaa ji mm-hmm. naan ku xelam neexut la mu naan ku wateel Macky Sall war nga Serigne Touba bisu àjjuma de la manipulation politique les vidéos circulent on sait ce qui se passe bi ma gisee ça m'a sidéré yu mel noonu da ngay dem ba est-ce que vomir les politique ñun murit lañ amuñ lu gën jumaay sa Tuubaa ji yaa ngi wax affaire murit euh, dégg nañu ki jiite Dakar dem dikk ay kàddu yoo xam ne yëkkati na ko jëmale ko ci autoroute Ila Touba bi ba koo déjjati sax yóbbu ko sax Fuuta waxi dof di ko ñaawlu te man personnellement oto Dakar dem dikk moom jëlee ko Touba Dakar du da nga koo boycotté. parce que tant que sa gaala mu ngi jiite Dakar dem dikk Macky Sall de loolu engagé ko li tax ma wax la ko depuis 2012 Macky Sall ngi perte Touba te terewut lam fi war a def mu koy def. est-ce que lu naar bu ndaw ba wax déggee ko ca bu mag. attention parce que ba ñuy <laughs> defar Ila Touba kooku niveau de responsabilité yi ma am directeur société la fekk wut fañ koy naale fekk wut fañ koy tënkee xamu ci dara. donc te nag at au delà au delà il faut ñu wax ko autoroute Ila Touba du ay autoroute politique. autoroute boo xam ne day ubbi tout le Sénégal la enjeu économique li ko benn waay wax rek na Touba euh, li nekk xëyee ci Touba ci oto jëm ndakaar mais genn wàll gi mbala quart bi mbala un dixième bi xëyee wut fuuta on a rien contre le Fouta et autres Sénégal benn bopp la il faut que ñu arrêté di stigmatiser ay waa Touba et cetera ku nekk am na droit wateel kala neex. man de su ma sañoon waa Touba wateel Macky Sall. citoyen lañ dëkk ci réew mi xaalis boobu ñuy defaree autoroute bi dañ cee bokk. di ci ko kenn ëppale wuñu si nag parce que économiquement Touba pèse très lourd dans ce pays. waaw donc ay waxi dof la waxi kasaw kasaw. te mënu leen a lu bari sax nag. ñun lu ñuy yàquleeti. ah déet ñu am beneen bët bu ñu leen xoolee peut-être. bët bu ñuy xoolee ñun xoolee nañu ko fii ba pare. Hmm. mais xoolal nit ñi ko pare c'est ça la réalité man waxuma loolu sax waxuma ay contingence ay calcul politicien non non non je ne fais pas ça dama ne rek sur le plan républicain lam wax république mënu ko accepter gis nañu ne tamit euh, responsable politique APR yi nga xam ne ñoo nekk Touba ak tasaaroo di ci am dem am na ñoo xam ne bi élection yi jegesee ñii di menacé ne dañuy génn ñii sax dem ba génn lan moo waral loolu nit ñi ñoo ko jàppee yéen bi ngeen nekkee ci biti du ngeen xaar nekk ci biir ñu nag yéen ñoo jaxasoo la c'est ça c'est c'est pas c'est c'est pas des relations concurrentielles xam nga yow mën ngaa nekk ci boutique bi ki nekk ci boutique bi ngay jaay muy jaay mais politique amul loolu. politique benn benn fay par exemple boo doon jël le secrétaire général de parti. kon suñu la déggee da ngeen am problème leader Touba wala. Euh, loolu moom su ma la ko wax ci xam nga ko dëddu Touba rek. da ko am Touba. noppi on a un problème de euh, d'unité. de coordination loolu moom mu ne su ko werante mais na kenn ku nekk na respecté la moromam di def rek mais nag jàpp ma ne gën na. nga nekk ci mbir di ci sonn ba waxtu jot ñu war a ànd dem liggéey nga toog fee ne bàyyi man du ma ba man actionnaire laa ci mbir yi dama cee xeex di ci liggéey ba mu toll nii ma gëm ko di ci dox donc amul kenn ku ma mën a bund xataal mbala nga may fexeel ba ba ba ma génn ci yëf yi déedéet dama cee bokk dama naan ci lëcc di ci nekk. donc mais keneen ku nekk euh, euh, yaa génn nga. Mm-hmm. mbala boykat rek am nga ci liberté <laughs> moi je respecte vraiment la décision des gens. mais deuxième tour bi xëy na alxames wala àjjuma bu ñu waxee ne deuxième tour di ngeen nangu est-ce que di ngeen nangu loolu. xam nga kay wax deuxième tour ak premier tour démb dégg ko. Mm-hmm. nee na mm-hmm. procès yi jóge ci département yi la ñuy teg. càmbar ko koñte. parti yëpp seen représentant toog. te seen xel dal na yéen. mais amul xel daal résultat yi kay ñëpp am nañ ko léegi. voilà kon c'est bon. yow mi bu la neexee daal une heure de temps nga calculer nga xam ne gañ. ñoom xam nañ ko gañ lu tax ñuy yëngatu di kii. Mhm. xam nañ ko gañ. parce que am nañ tout c'est amoon nañ fay représentant. Mhm. affaire yi dafa jeex. xam nga lu xaar. Mhm. ka a wax rek wax. Ah, waaye ñëpp xam nañ ko. Euh, ndax ku ci nekk amoon nga représentant ci département bu nekk. indi nañu résultat yëpp ñu teg ci table bi. machine yi léegi gaaw na kenn calculer tout ak loxo. waaw léegi nag. est-ce que ki nga xam ne xam na ne dafay dem à la retraite politique <laughs> Idrissa Seck ne moo dem deuxième tour affaire yi jeex na mu xam ko dama koy ñaan rek bu mu ñaaw ci xare bi wax dëgg yàlla ki gañ xam nañ ko waaw c'est c'est très clair kon vraiment euh, Sénégal c'est le Sénégal qui gagne. jox la nga tàgguwaale mot de la fin. Euh, mmh. nuyu rek encore une fois di remercier l'ensemble des responsables yi nga xam ne nekkoon nañ fi. Euh, notamment ki nga xam ne wax dëgg yàlla respecté nañ ko ci lii mu def ndax dafa feebaroon muy député Abdoulaye Seck Sadaga. Mmh. il était malade. malgré ça mu jóg takk fitam dugg ci campagne bi du début à la fin. à part aussi tous les jeunes yi nekkoon ci terrain bi ma leen wax ne qu'il ne cède pas au découragement li ñu am. li buñ ko xee nit nekk na ci beneen département liñ ñu liggéey fii bu ñu ko liggéeyoon foofu def farasia waaye nag fii am na spécificité boo xam ne. peut-être que ñi ma ëpp xam-xam. danañ ci jéem a gëstu pour voir. quelles sont les causes. nag te te te ñu xam ne rek euh, ñi ñu gañ. ñu félicité ñi gañ. xam ne yàlla joxe nguur. yàlla mi koy joxe am na ku mu ko jox mooy le président Macky Sall te loolu yàlla dogal jaarale ko ci sénégalais mm-hmm. dafa leer naññi ah damay lancer un défi. ku ko weddi rek na ñëw fii ma moom. Mm-hmm. wax naa la fere ya ca def bu jaree sax ñu wër département réew mi pare naa pour financer ko mm-hmm. pour que affaire yi leer. on gagne à plus de cinq cinquante sept pour cent la waxoon romb nañ ko sax léegi. ah <laughs> voilà ñu ngi koy sant baax euh, di ko gërëm mu nekkoon Serigne si la nekk responsable politique APR boo xam ne ràññee nañ ko ci diggante Touba ak Mbacké liggéey bu am solo bu nga xam ne mi ngi koy def ñu ngi koy sant baax di ko gërëm di leen jox euh, dig daje incha allah ci yeneen jotaay Serigne Saliou moo nekkoon ci caméra bi soxna Awa Ndiaye soxna euh, Khady ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm di leen jox daje ci yeneen i jotaay jërëjëf